pour rek daal ñu war koo dépendre ci at mi nga xam ne moom lañ nekk dinañ ko yaatal ci biir xibaar yi bérébu fajukaay bi ñu xamee ci di Medical Research Council lëkkalu ak daal seeni nag daal ay àndandoor ñoom yi nag daal dinañ amal nag daal benn fanu nag daal ndaje boo xam ne dañoo nag daal di amal ab taxaw seetlu si rek daal bés wala bëccëg boo xam ne moom la jagleel mbirum li nga xam ne moo di daal péngu wala mbirum li nga xam ne moo di ñàkku dinañ ko yaatal ci biir li nga xam ne moo di xibaar yi këru liggéeykaay bi ñu xamee ci di Social Security and Housing amal nañ seen i ab ndaje boo xam ne at mu nekk dinañ koy amal di nag tànn ñi nga xam ne daal ñoo war a doxal seen nag li nga xam ne moom lañ xamee si board of directors seen kuréel googu ñi ko war a nag daal doxal saytuwaat li nga xam ne moo di kër googu tamit si rek yan anam lay nag daal di euh, doxee lii nag daal amal nañ ko si rek daal ab nag ndaje boo xam ne daal ay kilifa yu bëri teewee nañ ko dinañ ko yaatal si biir xibaar yi ak yeneen gannaaw bàkka ñu daal di yaatal samedi la ñaar fukki fan yeeg juróom-ñaar si weeru avril atum 2024 di atum ñaari junne yi ñaar fukki ak ñeneent ñu dalal leen seen jotaay bu mag bii di jotaayu xibaar yi Ibrahim Khalil Gueye moo leen di yaatalal xibaar yi ñu yaatal xibaar yi Ministry of Finance and Economic Affairs di bunta bi nga xam ne ñoom lañ dénk koppar ak koom-koom yi nga xam ne moo daal réew mi ñoom nag ak daal seen i nag daal ay nag daal àndandoor daal dinañ amal benn fanu ndaje boo xam ne dañ doon fésal li nga xam ne moo di euh, dépense bi nga xam ne moom nag lañ nag natal banqaas yi nga xam ne ñoo nag nekk si rek ron nguur gi euh, fésal nag naka la ñuy nag daal di euh, doxalee li nga xam ne moo daal dépense googu li nag daal ab nag mbir la moo xam ne daal daal dinañ ko fisal si rek daal kanamu li nga xam ne moo di daal ay kuréel yoo xam daal daanaka lu leer nag daal moo leen daal di tax a si li nga xam ne moo di ndaje moomu ki ñu xamee si Mamadi Damfa nga xam ne moo yore nombal tànk bi ñu xamee si deputy permanent secretary ministry of finance moom li nga xam ne daal ndaje mi nag ndaje nag am solo la boo xam ne dañ ko def pour rek daal xamal li nga xam ne moo di askanu li nga xam ne moo di daal réew mi li nga xam ne moom lañ nag natal banqaas yi nga xam ne ñoo nekk si rek ron nguur gi li ñu war at mi nga xam ne moom lañ njëkkati atum 2024 ndaje mi la ko wax tax a jóg moo nag pour rek leeral li nga xam ne moo di dépense yooyu si nag yan anam la ko nag daal banqaas yi nag daal di ko nag daal di euh, dépense bu ñu sukkandikoo si li nga xam ne moo di kàddoom ki ñu xamee si Mar Niang yore nombal tànk bi ñu xamee si executive euh, director si banqaas bi ñu si Gambia Participates moom it daal nga xam ne sax si bi nga xam ne moom la jiite banqaas la goo xam ne daanaka lépp loo xam ne daal luy nag daal euh, doxalin la goo xam ne daal euh, buy buy leera daal ñoom dinañ ci faral di si suuf li nga xam ne moo di seen nag daal loxo moom nag daal dina wane ndaje mi rafetlu na ko gannaaw bi nga xamee daal nemmeekoon nañ ne si atum 2019 li nga xam ne moo di ab xayma joo xam nañ ko li ñu nag nemmeeku mooy si li nga xam ne moo di àddina si si rek wàllub nag daal euh, doxalin ku sell si rek wàllub li xam ne moo di daal dépense si at moomu nag daal bi ñu xaymi Gambie nag daal dafa nag dellu woon gannaaw si li nga xam ne moo di daal xayma jooju gannaaw bi nga xamee ne daal boo jëlee téeméer Gambie daal euh, nekkoon na daal daanaka si rek daal euh, ñeneenti nag daal réew yoo xam ne daal daanaka nag daal seeni nag li nga xam ne moo di daal leeral si rek wàllub nag daal dépense leerootoon si li nga xam ne moo di daal at moomu mu nag daal di wane si rek at yi xam ne moom lañ nag daal daal daanaka réewu Gambie daal jël na ay matuwaay si li nga xam ne moo di daal mbir moomu bu ñu sukkandikoo si li nga xam ne moo di daal ay kàddoom Tere Kabach nga xam ne moom moo yore normal tànk bi ñu xamee si Public Financial Management Officer si rek li nga xam ne moo di mbootaay tugal googu ñu xamee si rek EU seen banqaas bi nga xam ne moo nekk fi si biir réew daal dina wane li nga xam ne moo di nguur gi war nañoo gën a daal dogu bu daal bugga nañ li nga xam ne moo di ab coppite si rek li nga xam ne moo di leeral si rek daal dépense yi nga xam ne nguur gi nga ko dépense pour rek daal fexee li nga xam ne moo di askan bi gën a mun a xam doxalin gën a daal faaw nag daal ñu nag yokk li nga xam ne moo di matuwaay yi fexe nag daal lépp loo xam ne daal ñu ngi koy nag daal di def si rek daal ab li nga xam ne moo di yokkute ñu nag daal si nag ak li nga xam ne moo di askan wi bu ñu sukkandikoo rek si li nga xam ne moo di kaddu yi nga xam ne moom nag daal dina ko yëkkati li nga xam ne moo di daal ndaje bi nga xam ne daal dañ doon nag daal di leeral li nga xam ne moo di dépense yi nga xam ne jagleel nañ ko li nga xam ne moo di banqaas yi nga xam ne ñoo nekk si rek ron li nga xam ne moo di nguur gi dépense yi xam ne moom lañ leen jagleel si atum 2024 si nag yan anam lañ koy nag daal di dépense ñu amal ab ndaje pour rek daal fexe leeralal ko li nga xam ne moo di daal askan wi ñu wéyandi si beneen li nga xam ne moo di xibaar bérébu fajukaay bi ñu xamee si Medical Research Council daal di euh, lëkkaloo ak li nga xam ne moo di daal seen ay àndandoor kerook daal talaata daal nañ nag daal daal di amal ab taxaw seetlu si li nga xam ne moo di ab bés bu ay boo xam ne moom lañ jagleel mbirub euh, péngu wala daal mbirub li nga xam ne moo di daal ñàkku gannaaw bi nga xam ne daanaka li xam ne moo di daal ñu ngi ko nag tàmbalee nag wala sax ñu ngi tàmbalee amal ab taxaw seet nga xam ne moo di bés boobu euh, si rek daal juróom daal tàmbalee nag daal amal li nga xam ne moo di ab taxaw seetlu si rek wàllub li nga xam ne moo di péngu wala wàllub li nga xam ne moo di ñàkku ba tey nag fii si biir réew mi nag daal keroog xam ne moo di daal nag daal ab nag daal ndaje gannaaw bi nga xam ne daal xam nañ ne daanaka lu aju si rek wàllub péngu wala wàllub ñàkku daal ab mbir la moo xam ne daal daanaka dinay fagar lu baree bari si rek wàllu feebar yi nga xam ne dinay faral di song li nga xam ne moo di daal doomi aadama surtout li nga xam ne moo di tuut tànk yi gannaaw bi nga xam ne nemmeeku nañ la lu toll si fukk ak ñeneent si li nga xam ne moo di ay xeetu feebar daanaka li nga xam ne moo leen nag daal di faat wala daal moo leen nag daal di daan bokka na si li nga xam ne moo di péngu li nga xam ne moo di daal ñàkku si ndaje bi nga xam ne ñu ngi ko doon amal ken xamee si Clark nga xam ne moom nag daal ab nit ku ñu nag ràññee la si rek wàllub li nga xam ne moo di péngu wala wàllub ñàkku xam-xamam màcc si nag lool mu nag daal di wax ne daal daanaka buñ seetee si suufi li nga xam ne moo di Afrique daanaka li nga xam ne moo di mbirub nag daal péngu wala mbirub nga xam ne moo di ñàkku mbir la moo xam ne lu ñu fulla la ba tax am na daal ay nag feebar yu baree bari yoo xam ne daal daanaka amatu doole si li nga xam ne moo di suufi Afrique surtout nag si réew li nga xam ne moo di Gambie daal loolu yëpp nag daal li ko nag waral mooy nag daal farataal bi nga xam ne farataal nañ ko mbirub péngu wala daal mbirub li nga xam ne moo di ñàkku gannaaw bi nga xam ne wax na ne feebar yu si mel ni pneumonia meningitis malaria polio ak li ñu xamee si yellow fever yëpp nag daal ay feebar la yoo xam ne daanaka nag daal dañ ci dee jël fagaru nag daal laata nag daal muy nag laal doomi adama ji wala daal koo xam ne daal ab tout tànkale daal lii nag li nga xam ne fagaru yi nga xam ne moom lañ ci dee jël mooy nag daal fexe di nag daal péngu wala ñàkku ñi xam ne daal ñoo di daal doomi adama yi bu ñu sukkandikoo si li nga xam ne moo di ay kàddoom professeur Ubato Alexandro nga xam ne moom mooy unit director wala moo jiite MRC Gambia moom bi nag yëkkati nag kàddu wax daal solo si nga xam ne péngu wala daal ñàkku Euh, daal dina ko am si rek doomi li nga xam ne moo di daal aadama gi daal mbir la mu am solo la nag daal loo xam ne luy nag fagar nag daal feebar la bu ñu sukkandikoo si ay kàddu mu Fatoumata Diba deputy director of health service moom nag daal dina wane lu aju si rek wàllub li nga xam ne moo di wala ñàkku fii si biir li nga xam ne moo di réew mi mbir la moo xam ne daal daanaka daal bon banqas nga xam ne ñoom lañ dénk wér gu yaram askan wi euh, caaxaane wuñ ko ba tax nag loolu sax waral na li nga xam ne moo di nag daal jiyee yi nga xam ne yenn si ay feebar nag dinañ koy nag def si doomi aadama yi daanaka liy faral nag daal du nag am jee yooyu mooy nag daal li nga xam ne moo di péngu wala ñàkku yi nga xam ne ah, daanaka nag daal lu ñu nag daal lu ñuy faral di nag jëmal la bu ñu sukkandikoo si ay kàddoom docteur Yuley Widiata nga xam ne moom child uh, survival and development manager la si banqaas si banqaas boobu ñu xamee si rek UNICEF moom nag daal dina wane banqaas bi ñu xamee si rek daal UNICEF ñoom nag daal si seen si ndimbalu WHO ak daal yeneen si li nga xam ne moo di daal ay nag daal mbootaay eh, tax na nag daal li nga xam ne eh, moo aju nag si rek wàllub li nga xam ne moo di ñàkku wala daal wàllub li nga xam ne moo di péngu nag daal li ñoo sàkku mooy nag daal ñu gën koo nag daal di jëmal fii si biir li nga xam ne moo di daal réew mi ñoom sax li ñoo daal mooy surtout ñi nga xam ne ñoo di xale yu jigéen ñi nag daal ñuy fexe nag daal eh, di daal péngu wala daal di leen ñàkku pour rek daal ñu mun leen a fagar bu baax si nag li nga xam ne moo di ay euh, feebar Oumy Diagne Diallo global polio eradication coordinator WHO moom it nag daal dina wax ne daal lu aju nag si rek wàllub li nga xam ne moo di péngu wala daal wàllub li nga xam ne moo di ñàkku lu ama am solo te nag daal mbir la moo xam ne daanaka nag daal lu ñu war a gën a jëmmal la wala lu ñu war a gën a faratal la fii si biir li nga xam ne moo di daal rew mi su ko defee nag daal mun a moytandeku si li nga xam ne moo ay feebar bu ñu sukkandeku si li nga xam ne moo di ay kàddoom ñu wéyandi si beneen xibaar banxaas si euh, banxaas boobu ñu xamee si di social security and housing finance corporation ñoom nag daal da amal nañ seen nag daal ndaje bi ñu xamee si général annual général meeting nga xam ne at mu nekk nag dinañ koy nag daal di amal keroog alxames nag daal amal nañ ko tànn ñi nga xam ne daal ñoom nag daal ñoo war a doxal seen nag kuréel gi ñu xamee Euh, si rek daal euh, board of euh, directors nga xam ne daal dafa am nag ñu bees ñoo xam ne ñoom lañ ko nag daal di dénk si rek ndaje moomu tamit daal dinañ nag daal waxtaanee li nga xam ne moo di ak jafe-jafe yi nga xam ne daanaka am na si at mi nga xam ne moom lañ ñu weesu si rek banxaas boobu ñu xamee si social security and finance and housing finance corporation si rek ndaje mi ken xamee si rek daal ore mi joy na nga xam ne moom mooy chair of the social security board of directors moom nag daal dina wane banqaas bi nga xam ne si social security and housing finance and corporation kilifa nga xam ne ñoo ko ŋànk nag daal eh, daanaka nag daal waxtaan nañ pour gis ne ñi nga xam ne daal ñooy nag liggéey te nga xam ne daal tënkuwuñ ci nag daal ay nag daal këru liggéeyukaay ñu fexe nag daal ñoom it nag daal ñu gis seen boppa si li nga xam ne moo di Social Security and Housing Finance Corporation mu nag daal di war tamit lu aju si rek wàllu li nga xam ne moo di dëkkuwaay mbir la moo ne mu am solo la moo xam ne war nañ ci gën a nag daal di euh, euh, taxaw pour gis ne li nga xam ne moo aju si wàllu nga xam ne moo di dëkkuwaay ñun di koy nag daal jagleel askan bi nga xam ne seen nag loxo jorot seen gannaaw su ko defee ñu mun nag daal di si jote si rek daal loo xam ne daal du leen dikkee lu bari bu ñu sukkandiku si ay kàddoom euh, si rek ndaje mi tamit ki xamee si Salum Malang managing director bu social security and housing financial corporation moom rek am na ay xibaar yoo xam ne fisal na ko fa di daal euh, si rek atum 2021 lu rek toll si rek daal juróomi junne juróomi juróom si li nga xam ne moo di ay nit euh, ñu ngi doon liggéey si li nga xam ne moo di banqaas boobu noonu si atum 2022 mbir mi yokku na dem na ba juróomi junne juróom-ñetti téeméer Euh, fukk ak juróom-ñetta si atum 2022 euh, wax na si atum 2023 mbir mi yokku na daal di dem benn ak daal juróom benn junne euh, ñetti téeméer ak fanweer ak benn bu ñu sukkandekoo si ay kàddoom mu nag daal di wax ne rek lii nag daal li yëpp nemmeeku nañ ko si rek at mi nga xam ne moom la ñàkk daal di weesu si ndaje moomu tamit am na ñetti place wala ñetti ndombal tànk yoo xam ne dañ ko doon nag daal xëccoo si li nga xam ne moo di béréb bi si seen xew-xew boobu nag daal waaye nag ñett ñi nga xam ne ñoo ko doon xëccoo amul kenn koo xam ne mu ngi doon nag daal xëccoo ak ñoom li nga ne moo di ndombal tànk yooyu moo di nag ki nga xam ne moom lañ xamee si rek daal Aliou Fall Aboubacar Dabo ak ki nga xam ne moom lañ xamee si Mouminatou Dié Camara ñoom ndombal tànk yi nga xam ne moom lañ doon xëccoo si li nga xam ne moo di ndaje moomu amul kenn koo xam ne daal jongante na ak ñoom berte na ak ñoom lañ mujjee jox li nga xam ne moo di daal nombal tànk yooyu Aboubacar Dabo mu wane mbégteem ak kontaanteem si rek kóolute bi nga xam ne ay naataangoom am nañ ko dénk ko li nga xam ne moo daal ab nak daal nombal tànk mu nag daal diggéene li nga xam ne séntu nañ ko si moom nag daal dina fexe nag daal di ko matal bu ñu sukkandikoo si li nga xam ne moo di ay kàddoom ñu wéyande si beneen li nga xam ne moo di xibaar li nga xam ne moo di mbootaay bi nga xam ne mu ñoo duppee seen boppa di Alliance of Victims Led Organisation di ab mbootaay boo xam ne daal dafa umba yeneen si li xam ne moo di ay nag daal eh, mbootaay yu nag nekk si li nga xam ne moo di ronam nga xam ne ñi si bokk nag mooy xam ne daal ay victimes lañ wala xam ne jàpp nañ daal loru woon nañ si rek jamonoy nguur gi fi nekkoon di nguur yeexe jaame ñoom nag daal dinañ daal dalloo seen nag daal eh, kur mbootaay bu bees bi du duppee ko di Alliance of Victims Led Organisation si li nga xam ne moo di ab ndaje boo xam ne daal daanaka ay nag daal mbootaay eh, fekkee nañ ko gannaaw bi nga xam sax daal ñoom ñi nga xam ne ñoo ko nag daal di Euh, euh, sos nag daal yëkkati nañ kàddu si li nga xam ne moo di ndaje mi Sira Ndaw nga xam ne moom mooy euh, li nga xam ne moo di kuréel googu sant na gërëm na ñi nga xam ne ñoo leen dooleel ba nag ñu mun a taxawal seen nag daal kuréel googu mu nag daal di la moo xam ne yàggoon nañ koo nag daal di nas ba na jamono ji jëmmal nañ ko ab nag daal mbootaay la boo xam ne ñi nga xam ne nag wala yeneen si li nga xam ne moo di kuréel yi nga xam ne booti si moom bokk na si Women in Liberation Empowerment the African Network Against Extrajudicial Killings ak tamit uh, nag uh, disappearance ak tamit uh, survivors of the presidential treatment programme ñii ñëpp nag ay banxaas la yoo xam ne ñoo nag daal bokktu si banxaas bu mag bi nga xam ne moom lañ nag daal daal di jëmmal bes daal di ko dalloo ñu duppee ko di Alliance of Victims Led Organisation si li nga xam ne moo di ndaje mi ki nga xam ne moo di Fatou Jagne nga xam ne moom ku ñu ràññee si rek wàllu taxaw askan wi xeexal leen seen ak ak seen yelleef daal dina war a bi nga xam ne moom lañ dalloo mbootaay bu mag bi nag lu ama am solo la su ko defee eh, ñi nga xam ne daal ay aji loru mun leen a taxaw ñu mun a nag daal di am yoon ñi nga xam ne ñoo loon tooñoon si rek jamono nguur gi fi nekkoon ñu mun leen a yóbbu fi nag daal mbaxam na doon ne benn moom sax di rek daal Fatou Jagne mi moom sax daal bu yàggu taxawal nag kuréel goo xam ne mu ngi ko duppee Centre for Women's Rights and boo xam ne daal daf ko jagleel li nga xam ne moo di soxna yi pour daal di leen nag daal di eh, dooleel si rek daal ndaje moomu tamit ki nga xamee si Mamadou Kadi Thiam nga xam ne moom dafa bokk si victime si wala aji loru yoo xam ne loru woon na si jamono nguur ki fi nekkoon moom na nga xam ne sax daal euh, ay atam sori na lool jamono ji sax daal mu ngee nag daal màggal juróom ñeneen fukki atam moom nag yëkkati nag kaddu di nag daal di wax ne euh, nag li moo sàkku daal mooy li nga xam ne moo di kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekk tey li nga xam ne moo di baat boobu nga xam dina koy dégg mu di rek never again maanaam li fi daan xew si jamono nguur gi fi xewoon bañ fee xewoon mooy la moo xam ne li ñu war a nag daal di euh, fexe nag daal taxaw taxaw la maanaam war nañ ci gën a taxaw bu sukkandikoo si li nga xam ne moo di ay kàddoom si ndaje mi tamit Aïssatou Diame nga xam ne moom nag mu ngi bokk si rek daal kuréel googu moom nag daal di li nga xam ne moo di kuréel gi ab nag kuréel la goo xam ne daal ubbil nañ seen bunta ñëpp ñoo xam ne daal ay nag aji looru nag daal di ñëw bokk si fexe nag daal ñii nag daal yëkkatee ndoor njëkkatee ndoor di nag daal tërala bu ñu sukkandikoo si li nga xam ne moo di kàddu moom ki ñu xamee si rek daal Aïssatou Diame bokk si li nga xam ne moo di kuréel gi nekka tamit ab victime wala daal ab aji looru si rek xibaar gu mujj gi banqaas bi ñu xamee si di Gambia Tourism Board ñoom nag daal seeni nag daal ay nag daal yenn si seen ay kilifa nga xam ne ñu ngi foofu si réewum li nga xam ne moo di Angleterre Euh, keroog li nga xam ne moo di daal londi amal nañ nag daal ab nemmeeku joo xam ne ko doon nemmeeku yenn si ay béréb si réew mu ñu xamee si rek daal réewum li nga xam ne moo di Angleterre maanaam yenn nag daal béréb yi foofu si réewum li nga xam ne moo di daal Angleterre li nag wax nañ daal dañ ko def pour daal mun see nag bi nga xamee ne am na tamit ay nag béréb yi ñu ràññee fii si biir li nga xam ne moo di réew réew mi te nag daal seen nag nemmeeku yi ne moom lañ doon nemmeeku yi ñu ràññee foofu si réewum Angleterre nag daal ab nag nemmeeku la joo xam ne daal daanaka dinañ ci nag daal jàngee lu bare bare su ko defee nag daal li xam ne moo di béréb yi ñu ràññee fii si biir réew mi tamit nag daal ñu mun koo nag daal di fisal su ko defee nag gan yi nga xam ne ñu jógee koo tugal buñ fi ñëwee nag mun a dem nemmeeku ji li nga xam ne moo di béréb yooyu Adama Ndiaye yore nombal tànk bi ñu xamee si director of tourism promotion si foofu si réewum li nga xam ne moo daal Angleterre moom nag daal dina wane lu aju nag si rek wàllub nag daal daal di fesal li nga xam ne moo di béréb yi ñu ràññee fii si biir réew mi mbir la moo xam ne lu solo yoo xam ne ñu ngi si liggéey ñoom bu baax a baax te nag daal daanaka nag daal mbir moo xam ne ñu ngi koo fesal di ko ñag si rek si li nga xam ne moo di ay buntu xarale na si xamee si Facebook Instagram ak tamit website ak yeneen si li nga ne moo ay buntu xarale yoo xam ne daal ñu ngi koy fësalee li nga xam ne moo di yi ñu ràññee fii si biir réew li nga xam ne moo di daal Gambia seen nemmeeku bi nga xam ne ñu ngi ko doon nemmeeku foofu si réew mi li nga xam ne moo di Angleterre si béréb yi ñu ràññee bokk na si fi ñu xamee eh, si rek baki eh, Buckingham Palace maanaam nag daal màkkaan bi nga xam ne daanaka eh, fala ki nga xam ne moo yilif Angleterre ak daal di nekk foofu nag dem nañ nag nemmeeku li nga xam ne moo di béréb boobu dem nañ tamit nemmeeku béréb bu ñu ràññee ñu xamee si London Eye boobu tamit dem nañ nag nga xam ne daal ab béréb la boo xam ne jege na lool fi ñu xamee si Westminster Bridge foofu nag tamit dem nañ fa nemmeeku li nga xam ne moo di béréb boobu ab nag béréb bu ñu la foofu si réew mi nga xam ne moo di nga xam ne si atum year 2000 lañ nag daal di ubbi li nga xam ne moo di béréb boobu nga xam ne daanaka ay gan yu bëree bëri dinañ ñuy faral di dem di nag nemmeeku ji li nga xam ne moo di béréb boobu moom ki ñu xamee si Adama Ndiaye mu nag daal di wax li nga xam ne moo di béréb yi ñu ràññee yoo xam ne am na fii si biir réew li nga xam ne moo di Gambie war nañoo gën a taxaw gën koo nag daal di fesal gannaaw bi nga xame ne ab mbir la moo xam ne luy mun indi koom la bu ñu sukkandikoo si li nga xam ne moo di kàddum te ne wane li nga xam ne tamit moo aju si rek wàllu gan nga xam ne ñu ngi jógee koo tugal daanaka nañ fexe bu ñekk yegg si biir réew mi tàmbalee ko si li nga xam ne moo di airport bi daal nañ fexe nag daal ñu bañ leen faa woon loo xam ne dina leen tayalloo wala daal dina leen indi li nga xam ne moo di jafe daal lii yëpp nag daal ay nag mbir la yoo xam ne daal lu ñu war a nag daal euh, saytu la bu ñu sukkandekoo si li nga xam ne moo di daal ay nag daal euh, kàddoom moom ki nga xam ne moo di Adama Ndiaye mu nag daal di wan tamit yenn béréb yi ñu ràññee fi si biir réew mi war nañoo fexe nag daal ñu nag daal gën a euh, daal di dekkilaat li nga xam ne moo di béréb yooyu bokk na si béréb si mel ni Abuko Nature Reserve bu si mel ni Kunta Kinte ak yeneen si li nga xam ne Kunta Kinte Island ak yeneen béréb yi nga xam ne nag moom lañ ràññee fii si biir li nga xam ne moo di réew mi ay nag béréb la yoo xam ne daal béréb nag daal yu ñu war a nag daal di jëmmal la fexe nag daal li nga xam ne moo di gan yi nga xam ne ñu ngi jógee koo tugal buñ na jógee koo si réewu tugal yi ñëw biir réew ñu mun nag dina nemmeeku nga xam ne moo di béréb yooyu bu ñu sukkandekoo si moom ki ñu xamee si rek daal Adama bokk nag si kilifa yi nga xam ne ñoo ngànk banqaas bi ñu xamee si Gambia Tourism jamono ji nag moomu toggaleen foofu si réew mi nga xam ne moo di Angleterre di nag daal fexe nga xam ne moo di daal béréb yi ñu nemmeeku wala béréb yi ñu ràññee fii si biir réewu Gambie daal fexe daal di ko jaay su ko defee nag gan ñi nga xam ne ñoo jógee ko tugal mun a ñëw fii si biir réew nag nemmeeku